asalaamaaleykum mbokkee xaritu internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sant fu waay mën a nekk di ñu seetaan un peu partout à travers le monde à travers www.senclic.com di yéenekaay bi xarale bi nga xam ne euh, fu waay mën a nekk mën nga toog cliquer www.senclic.com mën a informé wu en temps réel ci information bu nekk nag tey maa ngi géejawaay parce que damay ñëw set si samay xarit seet si samay morom su ma leen di présenté nag damay wax c'est les gens les plus banalisés de la société pourquoi parce que ñoom dañu doon dund ay affaire de jeunesse nekkoon ci route bi nekkoon ci banlieue bi maanaam nekk ci wàllu banditisme doon guinze def ay affaire de banditisme ak yooyu yàlla tegoon leen ci ay natt nag maanaam jombul kenn muy ay kaso dem nañ ba génn ñëw mais c'est des gens yoo xam ne bi ma leen fréquenté xam naa ne ñu kuul lañ ñu baax la ñu am ay xol bu rafet lañu tey maa ngi am mbégte ak kontante toog ak ñoom ku ci mel ni Djily nga xam ne nit ñi ràññee nañ ko ci télévision yi Baye Djily maa ngi lay nuyu bàyyi ma njëkkee ci yow. mais mais avant ma ñu nuyu Djily damay remercier ci yëre bu nice bi ngeen ma jox franchement kontaan naa ci ah Djily naka la nice. nice ñoo ngi lay fay bu baax da parce que lii yombul da parce que da nga déplacé ñëw nii loolu ku la yëg moo koy def parce ko yow yaa ngi si bu am solo ah, yaa ngi si solo. donc lii nii day tax ñu gën a am encourage di gën a joob xam nga di gën a waaw di gën a moytu yenn yi di gën a xam nga booy di ñu gis yi di ñu gën a jàppale ndax parce que ñëpp bu meloon ni yow nii banditisme dana fi jeex te géewaay baay xam nga mooy loolu na góor yàlla yëpp xam nga mooy loolu ay baay faa lañ ay góor yàlla lañ ku su mel ni Elzo bi baay xam nga doon dara si géewaay incha allah rabbi xam nga am am lu mu gëm xam nga ñun dañ ko siy jàppale quoi ndax parce que amaana ñun xam nga ñun benn lañ quoi ndax tubaab du jóge fële ñëw di defaral ñun ñooy defaral suñ boobu géewaay bi nag ñun ñoo ko mën a defar ndaw moo mën a defar ndaw am déet amaana sëñ Abdou Karim maa ngi koy nuyu bu baax ndax parce que mu ngi ci joué rôle bu am solo ndax parce que borom maa Karim ala jox xam nga Serigne Saliou tamit jox leen ma ndaw ñi ma def la Serigne Touba defoon si mag man ma amoon chance bokk si ñooñu man mu ngi ma jële woon fii yóbbu ma xelkom ma nekkoon xelkom nekk fa nekk donga boo xam ne amaana xam nga ko woon naa daal si yenn yi amaana gars yi jàpp fas yéene xam ñeen ñi ñoo xam ne si yoonu dëng-dëng ñu leen siy génne booy yi nekk 100 mètres ñu leen seeti di leen xam di leen teg si yoon boo xam ne bàyyi amaana mooy loolu xam télé bu ne dem nañ fa wax rajo bu ne fa site yu ne fa mais yéen ñu mel ni xam bu fekk yéen ñuy jege rek lu mel noonu dana wàññeeku quoi te ñun am nañ bëgg-bëgg da parce que nit ku ne rek boo ko laajee am na lu mu bëgg quoi muy safaan ba muy leneen ba mais xam nga xam nga nekk si mbedd dund loolu gën a kenn quoi. yow suñ lay gis ci télévision yi ci plateau yi ngay wax di sensibiliser te waa waay xamoon la ci affaire de banditisme cest à yow ci sa sensibilisation bi ngay def ñi ngay sensibiliser nan lañ lay jàppee maanaam boo ñëwee ci benn bandi fekk ko suufu pont ko yow da nga war a bàyyi li ngay def nit nga da nga war a bokk ci société bi danga war a ñëw jëriñ sa société lan la lay tontu quoi. loolu jàngul mënoo ko tari ndax parce que ñun dañoo dekkoon si milieu bu garaaw doon fréquenté ak ñu garaaw xam nga dof nday di sëñ grand ñun ñëpp ñu xam ko affaire yooyu noonu. da parce que ñoom ñëpp suñuy grand lañ da parce que lii may def nii yombul yomb na da parce que am na lu muy métti sama waajuru jigéen barki démb woo na ma di jooy comme yi ma gis nii rek taxaw nii ndax parce am na lu ma doon dund passé naa ko passé naa ko mais nekkul ni passé naa ko rek damay passé noonu da parce que am na ñoo xam ne naa leen mën a dimbali da parce que nañ ma lenn li quoi ba si géewaay bi ma nekk ba fépp fa ma nekk des am na ñoo xam may jox cër xam nga nit des a def dara sóoraale ma mais Patte d'Oie dama fay dem suuf point bi di wax ak booy toog toog ak ñoom ko niñ nii kenn ku ne ma laajal sa mérite nga wax ma am ñoo xam si daara yi lañ jógee daw am ñoo xam kër yi lañ jóge daw kon li ñuy wax rek dañoo yàgg wax gouvernement bi dañoo war a jàppale comme lu mel ni u bil ñu ko ñuy récupérer booy di leen jël di leen xam nga di leen dugal si centre di wax ak ñoom si xel mu sell nit ku ne ku joge si kër ku jógee si si kii rek ku nekk si mbedd si kër nga joge ndax jógoo jekk nekk si mbedd kon kooku xëy boo ko téyee laaj ko lan mooy méttitam ak lan moo di dund man xëy na na la ko wax quoi mais nit kenn du ko abandonné da war a toog xam nga si société bi la bokk ñu koy laaj muy wax méttitam ndax doomu aadama yàlla nee na wala xadd karam naa bani aadama li ma bind lépp doomu aadama moo ko si gënal kon ñun waruñoo doyadil doomu aadama rawatina ku jóge si mbedd kon gouvernement bi war nañoo gëstuwaat foofu bu baax a baax sil ok donc la poussé Baye Djily lan moo la poussé nga ah, loo xam ne maanaam da ngay doon benn taalibe bu fàq rek topp fréquence bi nekk si ay doomu aadama yoo xam ne xam nga am na yoo xam ne sax doo ko xam ndax parce que ñun boo ñu gisee xam ne ay nit yi kersa lañ Touba gi ñu xam nga mais dañuy ñëw toog benn milieu boo xam ne nii xam nga toog ak ñoo xam amaana dañuy def na ko sudu noonu gis fréquentation boobu xam nga doo dégg ñun la benn pomme ter bu bu bu yàqu mën na dem ba yàq ñëpp ñuy dund loolu amaana loolu sax nekkul ni ñëpp a koy dund quoi mais affaire de banditisme moo nekk loo xam ni mbedd moo nekk loo xam ne xam nga boo si nekkee di yàgg rek dañu la baax bu la téye ah dama ànd ak ñu baax bon bu la téye dama ànd ak ñu bon ñu bon boo fréquenté ñoom bu yàggee nga bon baax tamit bu bu la téye bu ànd ak ñu baax bu yàggee nga baax ndax jikko day waale. ok jikko day waale mais ñu gis na aussi tamit bi nga nekk ci affaire de banditisme ci jamono jooju avant nga soppeeku dugg nga kaso. Hmm, non man mosuma dugg kaso mosuma dugg kaso mais nag am na grand xam nga gars yu ma àndal affaire ay mbéy gay si quatorze fois quatorze fois mandat dépôt ay gars yu bëri. xam nga ñoo xam ne nii samay fii samay booy leen sama affaire yooyu man mosuma dugg kaso nag mais xam nga daan naa ànd ak ñoom nii mais mosuma dugg kaso ndax parce que man lu fi bëri sama raar daa nu mu ko daan dundee ko quoi sama waa gaala xam nañ li may wax bu baax. sa raar noo ko doon dundee ci gens nga yemoon wala ci affaire de tux wala ci sàcc wala agression. oui xam nga loolu amaana sax comme loolu li ma wax rek émission bee passé dama def benn émission si télé. toog wax am lu ma sama jaar-jaar ay waajuru samay waajuru jigéen ay ay xaritam ñoo ñëpp toog di jooy di mer ni ma xama bul nekk si média bi moo tax am na yoo xam ne doo ko mën a passé ko doo ko mën a wax borom daaru noonu ne rako Cheikh Ahmadou Kara ma def benn émission bu kii fan yee si Walfadjri mu toog tamit xam nga am Baye ma xam nga nee ñu gën a wax rek Baye Fall dafa war a set Baye Fall dafa war a mel nii bëggul tamit ñuy waxaat si ñu passé comme Serigne Abdou Karim borom maa Karim ax la moom nee na comprends nga Baye Fall dafa war a mel yenn yeeg yooyu sa am na ñoo xam ne sant ñun ay référence lañ bëggatuma ndaw dégg si man benn kalaama goo xam ne naam da koy tuuse wala néeg yi moo tax yoo xam ne nii xam nga am na yoo xam si mën a wax da parce que daanaa fréquenté ak ñoo xam ne mais ginnaaw yàlla génn nañ ñun dañoo bëgg comme ñi si nekk ñu génn leen si comme noonu da parce que tux yamba gens yooyu yëpp amaana nattu la rek ki koy def quoi nekkul lu bon da parce que ñëpp xam nañ ne li nekk si ay danse bi si nekk mais ku si mën a génn ba si cigarette lool loolu lépp dansé moo ngi si nekk mais ki ngay def bu ko jàppee ko bon quoi boo ko mënee dimbali mu bàyyi ko moo gën quoi da parce que amaana loolu natt la quoi si ma gis-gis mais man rôle bi ma si man na maa ngi gisee bu ma gisee ko koy def koo xam ne du ma la forcer du ma la dóor du ma la saaga mais naa wax ak yow si xel mu sell lii kat nangam nangam su ma sayoon lii seen ay nit i nit koñ bi géejawaay bi ma dëgg xam nañ li may wax ay nit i nit bàyyi loo naa leen loolu ñu toog bàyyi ko mais nag képp ku koy def tamit du du ma jàpp ne yow da bon damay jàpp ne natu la mais loolu maa ngi koy xeex bu baax xam nga. ok léegi parfois da ngay gis ñu bàyyi ba benn instant dugaat ci cest à di génn di ci dugaat lan mooy waral loolu c'est-à-dire gars yi ñoo leen toppatoowul wala société bi ñoo leen ñoo leen ñoo leen faalewul wala nu mu demee noonu saa lan mooy waral tax nga ñëw tey comme tey yéen a ngi waaye di sensibiliser xam nga di ñaan ndaw ñi dem ci suufu pont yi Patte d'Oie di dem Colobane di dem partout ci Sénégal fi nga xam ci Dakar fi nga xamante ne ni gars yi ñu ngi fay fréquenté ngeen wàcc sur le télé di sensibiliser seen sensibilisation yooyu parfois da gis ñoo xam ne dañuy bàyyi mais alkaati du bàyyi dóor comme ni ñu gars yi di wax suba nga xëyaat leen ci affaire de banditisme ci seen yoon boobu wala nga dégg leen kaso lan mooy waral loolu loolu lan moo koy waral benn ñaar benn si parents ñaar euh, yoon ay tëj kaso boo demee ba maar si kaso bu yàggee xam nga loolu noonu day dem ba chronique si yow ngay dund loo xam ne maam du soog dund ndax nit day dem ba essence si nga ñu ñeeg da ngay dem si benn sa benn bokk si benn famille boo xam ne dañ lay abandonné ñëpp duñ wax ak yow di la xoolee bët boo xam ne ràngeej boobu na mën nga ka jàpp ba doon banditisme bi ndax parce que man na bu ma la grand bi maa ngi sama liggéey ñoo nga gaale gis nga waa koñ bi mais man fan yéene na le dem naa ba benn essence affaire bi dem na ba xam nga man ay ati at 2004 léegi nii nekkuma si milieu bàyyi naa lépp mais naa toog ak parce que fan yee maa doon dégg ay kàddu yu ñaaw ah est-ce que kii nekkaatu si milieu rek ak média bi toog ak yooyu noonu loolu dem ba sama xol nii ndax xam nga am waxee noonu dama naa ba benn instant nii xam nga tuddee ma dundaat loo xam ne xam nga na ko si noonu la mais nit boo gisee mu dund leen le woo ko mu sell nga ne ak lii mais yooyu noonu li koy waral booy dañuy dugg kaso génn duggaat am na loo xam ne war nga si nit may ko sens quoi. su fekkee dañu dugg kaso ñëwaat ci population population bi di leen taw loolu da leen di ñëgloo donc tey yéen ci koñ bi fi nga dëkk géejawaay nan nan la ñuy comporter ak yéen. waaw sama dëkkandoo gépp géejawaay ñi may comporter am na ñoo xam ne maanaam carrément teewut ñoo ngi may dund ak man di ma bégee di ma safoo di ma ndamoo di ma tiitaroo mais am na ñoo xam tamit ku xamul nit dee ko wooyee eh, quoi nit de fois am na ñoo xam ñoo ngi dëkk si koñ bi des fois dañ lay toog di la xaw a xool bëtub xeeb. di la xool fekk yow yaa leen gën a kii nii sax mais bu ko wane quoi di la xool ay bëtu xeebeel di la xool ay bëtu kii lii la di la xoolee loolu mais doomu aadama moo war a gëm boppam comme wàllu kaso yi ma doon wax léegi rek kaso kuñ fay dugal dañ la bëgg a yar mais nekkul yàq mais ñu bëri dañuy génn kaso yàq nit war nga ko mën a jàpp si benn infraction bu ndaw boo xam ni da ngay wax ak moom si xel mu sell eh lii baaxul nangam nangam kooku ëllëg bu la gisee dalay lay ruse loolu mais doo ko jàpp si xama di ko genre colomotif affaire yooyu mu jóge fa dafa ñuy fréquenté kaso ba bëri ñoo ngi génn liñ gisee noonu si kaso ba lañ ko gisee banditisme bi ñuy dund bañ fay dam dem yóbbaale wu woon dara mais dañuy génn gis fa lu gën a loolu am na fi kon yooyu yëpp war nañ ko mën a xool di xam a xale kenn du ko tëj kaso di toog ak moom di wax ak moom si xel mu sell comme centre yi affaire yooyu da parce que carrément ñun war nañoo mën a toog suñu suñu état yi war nañoo mën a jàppale na lii yàgg nañ see dox ku mel ni yow yow yow da nga jar a jàppale génn dérangement ñëw géej waaye xool waa jeunesse bi ñuy dund ku mel ni yow xam nga war nañ mën a jàppale ak ku nii ndax lii dafa rafet lii sas bu naaj la ñëpp meloon yow banditisme dafay jeex ndax ñun lii moo ñu manqué mooy kàddu kaddu gu ñuy waxee moo ñu manqué mais kenn bonul. yéen samay frère ngeen loolu du dara quoi franchement donc mais tey tey euh, yéen a ngi lancé benn mouvement boo xam ne mooy geste na lépp rafet di sensibiliser xam nga donc lan moo waral ngeen lancé mouvement c'est-à-dire rëccu la woon wala. waaw produit sax mm, euh, salaamaaleykum Sénégal xam nga man moom faa ma dooree nuyoo ndax maa ngi door a dugg mais bon boo gisee sensibilisation bi li ko waral mooy xam nga parce que banditisme li koy waral dafa bëri quoi yaa ngi dégg banditisme li koy waral bëri na man gis naa fi ñoo xam ne tey seen papa mu ngi ak lu dul jeex seen yaay mi ngi ak lu dul jeex mais ñoom ils ont choisi xam nga jël yoonu bandi ñoom loolu lañ choisir yaa ngi dégg kon banditisme nekkul da manqué naa juróom wala manqué naa fekki dërëm parce que gis naa fi ñoo xam ne manqué nañ fekki dërëm manqué nañ juróom mais ñu ngi dem ak seen ngor quoi xam nga kon banditisme leneen la quoi leneen la. lan lan lan la quoi lan. bon yëg-yëg la boo xam ne yëg-yëg la boo xam ne yow nit ki xam nga souvent mer gu ëpp moo la koy teg nga dem def ay dégâts yoo xam ne après boo toogee sa conscience bu retrouvé woo bu ñëwaatee si yow non da ngay xam ne yow li nga def nii def nga erreur après li ngay mën mooy dem jégalu quoi eh, na ko société bi jàppee loolu. banditisme neexul kenn quoi ku sañoon doo nekk bandi ku sañoon da ngay liggéey yem fi nga war a yem gëm sa bopp di dimbali say waajur di dund geste bu nice parce que ñun suñu slogan sax mooy góor jàpp ci góor. góor jàpp ci góor ñu bennoo bokk ndey bokk bàyyi di liggéey di jàppalante di dimbalante mais tey suma ma laajee euh, temps bi nga xamante ne ni def nga ko ci affaire de banditisme temps bi nga xam ne dépassé nga ko ay sept ans de banditisme huit temps lu bëri changé lu bëri raw la après nga jékki-jékki génnaat ñëwaat société bi di sensibiliser sensibilisation boobu dina am ñoo xam ne duñ la ñeme. parce que dañ naan non Sénégal dañu am benn tendance boo duggee kaso rek ba génn ñu ne i dafa bon. suñ la séenee ngay ànd ak seen doom ñu ne woo seen doom ne bul àndateeg diw diw sàcc la bandi la agresseur la moo fi nekkoon di tux yàmba tey est-ce que loolu permettre na leen tey ngeen ñemee jege askan bi ba di leen sensibiliser ñemee jege askan bi ba di leen wax seen i doléance Euh, bon li nga wax bon question bu am solo nga wax ni parce que boo xoolee man bon peut-être jëli moom sax nekkoon na xel kom daara ja ak yooyu noonu mais xam nga man moom bon yàlla dafa def ma nekkoon si école yi di jàng bon maa ngi débuté sama jàng maa ngi ko débuté a Popenguine xam nga vers les années quatre-vingt-dix-huit xam nga mais je suis né à Diender man doomu Diender laa maa ngi leen di nuyu de passage képp nga xam ne yaa ngi dëkk Diender tund buñ naan Njëgën biir saareen maa ngi leen di ziar xam nga di leen wax la seen doom la Elzo Sarr Cheikh Sarr pour mu gën a leer mais li nga am na solo quoi parce que boo dekkee si benn affaire tey ba génnaa si nii ñëw di wax ak nit ñi si loolu noonu xam nga ñu lay mën a déggee nopp yu wér yi du bëri daal xam nga mais xam nga dañuy gëm ni rek yàlla moo ko def quoi xam nga parce que man mi di wax ak yow xam nga 2008 2009 laa génnoon school maa ngi bàyyi jàng ay classe de quatrième laa bàyyi jàng quoi xam nga parce que man boo gisee lu tax ma bàyyi jàng mooy xam nga sama yaay mënu ma woon fayal sama papa mënu ma woon fayal yaa dégg te demoon naa ba redoubler ñaari classe quatrième boobu noonu def naa ko ñaari yoon xam nga loolu du woon ñàkk jom du dara mais toppoon tamit mbedd mi quoi fréquentation xam nga àndandoo waxul dëgg quoi moo tax ñu bàyyi école nekk si mbedd mais mbedd macha allah nekk nañ si ba léegi nii xam nga ñu ngi ciy sant yàlla quoi parce que man mi di wax ak yow man samay problème nii sax bëriwul quoi man amul problème mu àdduna quoi benn erreur daal mos na ma arriver ma dugg si xam am naa foofu benn 21 jours affaire yooyu noonu mais teewul bi ma ñëwaatee dama fee fekk samay nit ñu xam ne ma booy erreur bi mu la dal nii xam nga bu yeneen yooyu noonu. mais lan ban erreur moo la dal lan nga defoon ba dem kaso. loolu boo xoolee benn xale bu jigéen xama rek lañ dajaloon nii xama rek maa ngi ànd sam benn gaan mais àndandoo des fois xam nga mooy loolu. agressé ko agression ko sax mais xam boo xoolee gars dañ ko nax waa jël téléphone am nii xam nga. waaw ah, mooy agressé rek sàcc gi quoi saa looy daw ah, mais bàyyi jili tey génn ngeen kaso ah sa waay na waxoon ci rek non agression la la mais léegi tey yéen a ngi gis ngeen li xewoon ci suufu pont Padois seen i seen seen i xarit seen mbokk yooyu nga xam ne donc rey nañ leen foofu à cause ci benn affaire boo xamante ne yéen ngeen koy ñaawlu ah. c'est-à-dire ñoom lu tax ngeen ñaawlu loolu bon lu ñu koy. waaw waaw lu ngeen lu tax ngeen di ñaawlu seen affaire boobu. ñu li koy def ñu koy ñaawlu mooy xam nga tey comme su doonoon sa du la neex quoi man mënuma comprendre fii borom borom doole ñoo ngi sàcc xaalis réew mi di ko yóbbu xam nga loolu noonu kenn du toog te la waxoo ku ko wax ñu tëj la xamal ma la wax ni parce que système Sénégal moo doxee noonu quoi tey am na ñoo xam ne. am nañ ay dëgg yuñ téye nii téye preuve bi mais mënuñu ko wax fenn parce que boo ko waxee ñu dem kolo motif la yóbbu la ci kaso bi alors que loolu dañ see maar quoi. man man su ma leen dégloo su ma leen dégloo ci seen i sensibilisation ci seen i wax ci plateau télévision yi li ngeen di kaas mooy lan non non tànk yooyu ñu war bëm foofu waruñu dugg ci suuf pon ñu taal pont bi taal ay pono saxaar si ñu dee foofu loolu du yoon. mais aussi tamit da gis ci benn côté bi rek. waxee la woon ci beneen côté bi mooy yaay booy bi nga xam ne liggéey na ba wàcc xëy na xam ban heure la jóge këram. di uti lu mu jox njabootam nga ñëw dogaale ko nangu li mu yor. jam ko mu dee. mais loolu noonu cest à man dégguma leen ngeen wax ci loolu benn yoon quoi te yéen da ngeen positionné wu pour wax loolu. parce que nekkoon ngeen ci milieu boobu génn. après di sensibiliser. bàyyi ji li loolu grand doguma la sax ndax parce que doomu aadama bu ne comme li ma wax léegi wala xadd karam naa bani aadama doomu aadama bu ne bu génnee àdduna rek war nga ko am météo. ajaa boobu noonu xam nga ñoo ngi koy jaala bu wér loolu dëgg la quoi Sénégal xam nga lu ñaaw xaju fi mais amaana loolu loolu du man la booy defuñ ko ko a comme li ko Mbaye Guèye Sess bu naas di waxee booy ay tout temps lañ am na ñu demee dañ leen di saakatoo nit ñëw fa def fa loolu ñu ñoom ñu ñoom ñoo ko def sa defuñ ko parce que ñun xam nañ leen ñooñu xam nga société bi dañ leen xaw a bedd sax tuddee leen ay buujumaan ñoom foofu la ñuy nekk di gens di def noonu xam na ne di def yooyu ñoom toluñ nekk foofu sax di agressé bay ree non maire boobu loolu nag metti na ñëpp mais doomu aadama yàlla moo ko teral waroo ko mën a jël xam nga bi nga déggee ñi dàq nañ leen ñu nekk si kii bi si pont bi waroon nañoo mën a ñëw xam nga jàpp leen def enquête ñu xool kan moo def loolu ñu après yoon teg ko loxo nga xamal ñëpp ñoo defandoo ñaar lañ si gis quoi mais li mbéy di wax noonu ëpp loolu ëpp na ñaar dàq ay nit ñu dugg si canal bi nga yëkkati ay pënu tegal jël essence taal lool ñaaw na Sénégal loolu xaju fi te parce que li Elzo wax loolu kuñ ko def sa doom xam nga du la neex ko quoi te ñooñu bul xamal ëllëg luñ doon jural senegal te ay ndaw lañ xam nga ñun ñoo ngi nii nekkoon si milieu bi Serigne Saliou jël ñu defar ñu. kon ñun ñooñ ñooñu ëllëg mënoon nañoo ñoo nekk nu comme ni ñuy defaree ñu defaree noonu nit war nga ko mën a fekk muy dund banditisme nga woo ko ni ko lii ak lii mais loolu ñu ngi koy méttitlu soxna soosu nag xam nga ñoom moom xam nga ñoo def xam nga defuñ mais man yaakaaruma ñoom la quoi. xam nga am na yoo xam ne yoo xam ne nañ koy bàyyi ak yoon mais yaakaaruma yoon ndax ñooñu xamee wu leen ko waaw yenn yoon lañ koy bàyyal quoi. ok yow yaakaaroon ni ñoom la mais man ci sama xel ku deful dara du daw loolu la parce que booy il paraît que bi ñu defee affaire bi ñu leen gis dàq leen ci la ñu daw dugg ci pont bi mais loolu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ciy masawu ñaari xale yooyu parce que quelque soit alpha ay doomu aadama lañ ci société bi la ñu bokk comme li nga wax rek sànq ñàkk nañ seen i bakkan ñu ngi koy masaw maman bi aussi tamit ñu ngi koy masaw di ko jaale seeni i mbokk seen i waajur population bi ak société bi yëpp mais tey lan mooy ak seen activité quoi tey. waaw lan mooy lan mooy activité bi yow ci loo nekk ci loon ngay yëngu bi nga bàyyee affaire banditisme ba léegi yow ci lan ngay yëngu bi nga nekkee affaire banditisme ba léegi. man amaana comme euh, li may wax rek yàgg naa toog si télé wax ko man chauffeur transport la oto bu ne mën naa kaa dawal oto bu ne yor naa ko ne xam 14 raisons dem naa fa. chauffeur taxi laa ma yor lépp daal polyvalent lépp mën naa ko dawal mais teewut maa sama koñ ubbi sama benn entreprise bu ndaw yor sama benn magasin mooy fi ñu nekkoon noonu ñoom Elzo xam nañ ko boo yoo xam ne jàppuñ si dara ma woo leen di la ma di leen joobloo yenn yi quoi affaire yooyu noonu xam nga ñuy jaayee café Touba ay ginaar yii nii xam nga ay nen ay affaire yooy noonu tew ay laxasaay yii nii ñun ñoo koy joob di leen ko jaay xam nga mooy mooy yi ngeen ma jox quoi yi ah. waaw yi ñoo koy joob di ko xam nga di ko jaay affaire yooyu teewul nag xama game bi nii ñun ñoo ngi si quoi ndax parce que suñu rakk moo si nekk dañ koy dooleel. kii boobu sax waaw boobu sax xam nga pour pour pour mu gën a yaatu daal boo gisee dëgg la banditisme bi ñuy waxtaanee nii c'est vrai quoi ñun dañoo jóg pour xeex ko mais xeex bi xam nga duñ saaga kenn duñ déranger kenn xeex bi diplomatie lay doon quoi. peut-être dañuy dox si gox ak goxaat yi rek gisee ak ñi nga xam ne peut-être nañu ñoom ñu ngi dund baani tesu ñu sensibiliser leen waxtaan ak ñoom yaa dégg indiwaat seen moyen quoi. parce que peut-être nga da ngay rap. waaw man je suis artiste damay rap. depuis nga commencé ci rap bi wala bi nga bàyyi affaire banditisme. rap bi rap bi maa ngi si dugg bi ma bàyyi jàng ba léegi ah, ay 2007 2008 laa daan topp xam di bëgg rap di ko dund xam nga. da nga éducation bi ma mbedd mi jox tey mën naa ne rab bi la quoi waaw man bi ma bàyyi jàng ba teg sama tànk si mbedd dama ne eh fii nii kat gis naa fi waaw gis naa fi yamba gis naa fi gens gis naa fi dorog gis naa fi agression kon damay moytu loolu quoi tey hip hop bii nii naa jéem a ànd ak hip hop bi xam nga parce que hip bi am na civilisation quoi booy yi ñu ngi fecc break dance ñii ñu ngi way ñii ñu ngi tag si mairie di graf xam di def ay ay job yu peut-être loolu mooy nekk li nga xam ne mooy jëmale société bi kanam mais pas ay agressé wala ay jëlee fa jàmbur wala yeneen affaire quoi ñun booba léegi ni ñu ngi si musique bi te booba léegi tamit ñu ngi teg suñuy track di teg suñuy affaire ñu kenn si lenn quoi li nga xam ne liñ naan liñ naan nit ku nekk li nga am ngay duggee marché ñun moo ñu dal ñun dañ nekk ay zone tey di am lu ñuy xeex mais faaw am ñu ñoo xam ne ñoom faa ñu ñoo jàppale ñu si te ñun xaaruñu leen si de mais ñoom saa saa ñu ci ko yëgee rek saa ko yëgee ñoom dina ñëw teg si loxo parce que lii dama gis ni tànku kanam la quoi mais du tànku ginnaaw xam nga parce que ñun mosuñu woon yaakaar ni sax dinañ dem ba toosi média mais tey boo xoolee média bi ñun lay wër quoi parce lan la sensibilisation bi ñuy def moo am solo tey dañ cee toll jamonoy góor jàpp ci góor la moo koy waxaat mu leer géejawaay na ñëpp jóg ñu góor jàpp si góor jëli waaw góor yaa yi nañ jàppoo daal defar dëkk bi mooy yoon. ok da ngeen amoon ci ay projet yu ngeen toll. tey ma am occasion pour laaj leen projet fu mu toll. da ngeen fi déclaré woon ni formation. di récupérer ndaw ñi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi di def affaire du banditisme di gens di sàcc di agressé dugal leen ci centre formation boobu te centre formation ku ko wax wax financement financement boobu fu mu toll ak fan ngeen fan ngeen koy jëlee. bon centre formation boobu noonu financement beeg lépp yomb na yàlla quoi ndax tey ñi la mën a jàppale nga taxawa loolu bëri na bëri na quoi ñaata autorité Souleymane ñoo nekk Sénégal ñaata autorité Souleymane Ba ñoo nekk biir Géejawaay mais taxama la moo am tey ji toog seetaan moo am parce que lan sa doom nekkul si kaso bi di nga seetaan waa kaso bi mais man yaakaar naa ne autorité yi nekk si dëkk bi képp ku sa doom tëddoon si kaso bu xat bii nii te metti te salte te xeeñ ah di nga jóg nga waaxu takk sa tubay takk sa daal nga xool li fa xew quoi te dina la naxari quoi mais dama jàpp ni comme que tey doomu baaroo lay ñoo fa ëpp peut-être baadoola yi amuñu doole bu ñu demee foofu chaque jour ñu doole bu ñu fay am na boo yoo xam ne seen waajur mun leen yóbbul lekk mun leen yóbbul naan am na boo yoo xam ne sax peut-être li nga leen di yóbbul duñ si jot xam nga yooyu yëpp mi ngi si kaso bi quoi te kaso bi man du ma jóg di si wax quoi xam nga malgré que man dugg naa fa nii par erreur génnaat ay 21 jours yi moom jàpp ma ni sax pen la quoi. ndax gis naa fi ay penu. penu ginaar la quoi penu ginaar. waaw li gën a naan penu ginaar la man penu tapet laa tëdd quoi man moo tax ba léegi nii moom laay doxee nii moo tax may sensibiliser bëgguma sax sama rakk dem fa am fa un jour bëgguma ko ndax sama 21 jours yi moo ma si jox exemple. yaa ngi dégg ñun nag mbedd mi li ma la la rek éducation lañ si jëlee mais jëlee wuñ si sànkute quoi ñu ngi sant yàlla bu wér. donc maa ngi leen di sant di leen gërëm donc ñëw naa seet si leen biir Géejawaay xam nga ñu ñu teral ma wan ma ci ruq-ruqaan Géejawaay def affaire yu nice wan ma seeni i seen i yi ñuy def di sensibiliser donc wan Mbaye seen damay Mbaye Sène Mbaye Sène naka mu ça mais ñaar ñi wax nañ rek garaawul yow nuyoo rek. damay nuyoo ah, Abakara waaw from Géejawaay. ok Abakara Géejawaay merci beaucoup mais wuy ma bàyyi ci li euh, tey ban message ngay lancé ci autorité bi. xam nga woo leen ñu ñëw jàppale la ci sa ci seen ci seen mouvement boobu góor jàppal ci góor. geste bu nice xam nga xam nga geste bu nice ñu ngi koy woo geste bu nice suñu grand ñu ngi koy woo moom moom xam na ko quoi booy Ngaka Blindé ñu ngi lay woo man la Elzo xam nga sa booy. everyday ñu ngi lay woo booy Matadi ñu ngi lay bëggee di la woo xam nga si faat bi ñu xam ne Guédiawaye ñun ñoo tàmbali faat bi te ñoo ko war a yegali. Guédiawaye Kimpi Roy Thia yëmbal Aseg na bàyyiwuñu kenn next level maa ngi lay ziar négas bi nga xam ne moo def sant bi nii ñu ñu teg nii Niggas bi moo ko def quoi moom moo ko composé next level mu ngi dëkk fii nii asak naa yor benn studio bu naan leeru sound dañuy doog a door nag di ñaan yàlla xam nga góor jàpp si góor ñu gën a am doole. ok maa ngi leen di remercier di leen sant waa mais sa dernier mot bàyyi jili. dernier lu dul kontaan si yow ndax parce que lii dafa nice xam nga yendoo ak ñun toog ak ñun xam nga dugg si mbedd géewaay fépp xam nga di sant Serigne du Karim bu baax na comme li ñu waxoon rek borom dindi maa ngay sant bu baax a baax a baax Serigne Abdou te parce que um, amaana Mbacké Balla comme li may wax loolu lépp maa ngi si teg sama bët di ma koy sant bu baax ndax Elzo yow Baye Sil dañuy ñaan Baye sa média bi dem ba si international doon télé télé ndax parce que amaana yow yaa ngi suyee loo xam ne Baye état bi war nañ la geesu quoi war nañ la geesu bu baax ndax parce lii dafa am solo ñun xam nga ñun amuñ doole poos amuñ doole mais kaddu lañ am sa yaa ngi ñuy jotale suñu kaddu ka tas monde entier dégg ko sant la gërëm la sant waa Géejawaay bi sant ñëpp ñi jàppoon si bis bi affaire noonu. leel Diori waa Jeysun 313. fépp fu mouvement nekk Baye Fall œuvrer pour Dieu à travers les hommes rek ñu ngi leen di big up di leen siyaarati ONU 2 maa leen di bégee waaw Cheikh Wade Baye laa Ndiarème xam nga Cheikh Assane Martin Bes Assane na sans fil. waaw ñun la doomu Géejawaay Baye Jilek Elzo la. Mbaye Babacar la Sène la xam nga ànd ak Zil bi du jeex euh, fin fin.